أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين laqin lisaani waxlulan minhu luqad wajaalhu shaakiran wa zakiran abad wajaal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñu ñëw rek di continuer ak yéen ci ni ñu ko baaxoo defee ci ay bis bu ñot di ànd ak yéen ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne moom la tuddee annahju qada il xaaj te lépp sëriñ bi di fi tënk ay teggiin ak jëflante goo xam ne nit ñi war nañ koy sàmmoo ci jëflanteeg seenub nawle waaye jëflante koo xam ne dana làmboo ay teggiin ci bépp fànn ci loolu lañu nekkoon ba keroog ñi ngi taxawoon ci fi nga xam ne fa la sëriñ bi di wax ne soo demee bay bëgg a dugg ci néegub jàmbur na nga yëglu su fekkee ne digal nañ la jox nañ la digalul nga dugg nga dugg buñ la joxul ndigal nga dellu ci maanaa mi nga xam ne moom la sëriñ bi doon firee bayit yooyu ci lañ taxawoon ci foofu ñu yemoon nag fi lañuy continuer waat rek ba tey sëriñ bi di wax ne walaatu saaxib bul ànd in aratta za safahin boroomuk dese aw xasadin wala boroomuk kiñaan aw raxba wala boroomu xemmem àdduna in arata ndeem namm nga soxbatan ab àndandoo sëriñ bi radiyallahu anhu nee na bul àndaale ak ku dese bul ànd ak ku iñaan bul ànd ak koo xam ne dafa xemmem àdduna mbiram mépp ci àdduna rek la ko yemale saa boo demee bay wut ab àndandoo sëriñ bi nee na nanga moytu nanga moytu ñett ñoo ñu mu la limal bu baax a baax a baax ndax ki nga xam ne dafa desee am xelam matut mën na laa wommat jëmale ci lu bon ki nga xam ne nag dafa kiñaan dafa nekk ci ab xolam kooku moom chaque jour kiñaan googu mën na la koy wàll mën naa dem ba dugal jikko jooju ci sa ci sa biir bul àndandoo itam ak i koo xam ne dafa xemmem àdduna maanaam ab xolam lépp àdduna rek la ci def maanaam bàyyiwut xel yàlla mukk léppam daal àdduna ak nu muy def ba am ay alal wala yu demee noonu rek moom moo ko yitteel waaye am xelam du dem ci yàlla mukk sëriñ bi ne na saa boo demee bay wut ab àndandoo na nga moytu ñooñu nga xam ne ñoom la la limal mu ne walaatu jaalis bul toogaale xayra man lu dut ka nga xam ne tuzaadu da nga dolli ko bihi ca moom diinan diine waaqalan akum xel abadan ba faw tanal kon nga am muraad sa nammeel maanaam li ngay sàkku sëriñ bi nee na bul toog ak mukk koo xam ne du la dolli diine du la dolli ci wàllu diine du la dolli ci sa wàllum xel waaye moom daal boo toogee moom ci ay yittey boppam wala loo xam ne du la amal benn njariñ rek ci lay sax di ci wax ak yow sëriñ bi nee na na nga moytandiku ñooñu bu baax a baax nee na saa boo demee bay toog daal na nga toog koo xam ne boo toogee moom sa diina mën a yokk ci moom wala boo toogee ak moom dina waxtaan ci ak yow ci am xel ba sam xel gën a màcc sam xel gën a mën a xelaat lu baree baree bari ndax nee na fa axbaru xibaar nan bi annamal mar'u ndaka nit ki day ala diini xalilihi danañ ko natt ci diiney ab xaritam xadiisan mu di ab xadiis nuqilaa boobu toxaleef na ko nee na li tax mu wax loolu de mooy ki nga xam ne mooy nit ki day chaque jour ci ki nga xam ne moom la suñu borom dogal mu ànd ak moom kooku rek te lañ koy natt maanaam ki ngay àndal mooy li olof di wax ne won ma sa xarit ma wax la ki nga doon kon nit ki su fekkee ne day ànd ak nit dañuy jàpp ne lépp loo xam ne moo nekk ca kooka rek saay su ne jikko yooyu ya nekk ca kookee mën naa ñëw ci yow ngir taqoo gi nga xam ne moom ngay taqoo ak moom ak ànd gi nga xam ne moom ngay ànd ak moom kon moo tax saa booy wut ab àndandoo wala ab xarit war nga wut koo xam ne danoo yor jikko yoo xam ne mën nga koo roye ci moom muy jikko yu baax wala boo àndee ak moom dana la mën a dolli ci sa côté diine wala mu dolli la ci sa côté sa côté xel moo tax mu ne yaani li mu jublu ci wax jooju annahu naka moom yusiika dana la dénk dénk bi an laa tusaaxiba ci nga bañ a àndaale asufahaa way dese ñi maanaam ñi nga xam ne dañoo dese wa bi an laa tujaalisa ak ci ngay bañ a toogaale illaa ci lu dul ka nga xam ne illaa man ci lu dul ka nga xam ne tasdaadu da nga dolli ko bihi ca moom aqlan am xel wa diinan ak diine fa inna zalika naka loolu tanaalu ca ngay amee maa la nga xam ne turiidu danga ko namm fi daari ni ci ñaari kër yépp muy fii ci àdduna ak ëllëg yowmal xiyaam ne na kon mi ngi lay dénk rek ne la bul àndaale ak képp koo xam ne dafa dese wala képp koo xam ne dafa soxot wala képp koo xam ne dafa xemmeem àdduna nee na na nga moytandiku di ànd ak ak ñooñu waaye booy ànd daal na nga ànd ak koo xam ne dana la dolli diine dana la dolli am xel waaye bul toogaale mukk koo xam ne booy toog ak moom sa diine day wàññiku wala boo toogee ak moom du la waxtaanal wala mu lay wax lenn loo xam ne mën na laa jariñ ci sa côté diine waaye du la wax lenn loo xam ne mën na laa jariñ ci sa côté àdduna ci loo xam ne mën naa jagal sa dund te du tax nga fàtte suñu borom bi subhaanahu wa taala nee na loolu de su fekkee ne def nga ko de nee na lépp loo xam ne moom ngay mébét te di ko namm fii ci àdduna wala nga koy mébét di ko yaakaar fële ci àllaaxira ëllëg suñu borom mën na la koo defal ndax nee na fa innal mar fa innal mar a naka cem si de ala diini xaliilihi ci diine yi ab xaritam lañu koy natte xaala wax na sayiduna aliyun sayiduna ali karrama yal na teral allahu yàlla wajhahu jëmmam ja ne na nit ki dañ koy natt ci diiney ab xaritam wala diiney ab àndandoom maanaam ki nga xam ne moom ngay àndal rek moom la ñuy jàpp ne népp nu mu mel rek noona ngay noona ngay mel moo tax mu ne sayiduna ali radiallahu anhu waxoon na ci lu mel noonu li mu waxoon mooy mu ne falaatu saaxib bul àndaaleeg aqa jahlin mbokk mu réer wa iyaaka maa ngi lay dénk wa iyaahu maa ngi koy dénk fa kam min jahilin bariwaana aji réer ardaajo alku na alak na xaliman aji xelu xiina waaqaahu ba mu mbokkaale ak moom maanaam ba mu àndee ak moom Seydina Ali nee na bul ànd ak mbokk mu réer mukk maanaam képp koo xam ne dafa réer ban xam ne kii ak réeram dafa biir maanaam li muy def tegu ko ci benn xam-xam day tëñax tëñax di dem rek kooku Seydina Ali nee na bul ànd ak moom mukk ndax nee na bari waana aji réer yoo xam ne day alku ba pare alak ka nga xam ne mooy borom xel ma nga xam ne mooy ànd ak moom fu mu toll kon su yàlla dogalee nga am am xel bul jàpp ab xarit mukk koo xam ne li muy def du ci xam dara day defee ab ci bànneexu bakkanam rek waaye li muy def du ko teg ci benn xam-xam kooku Seydina Ali nee na na nga ko moytandiku bu baax a baax ndax kooku saa boo xamee ne àndaale nga ak moom saa bu alkoo dana la alagaale yow mi nga xam ne yaay boroomam xel ndax la nga xam ne moom lay jëf di ko def moom nga koy toppandoo te boobaa loolee du la yóbbu fu baax moo tax mu ne yuqaasu danañu xiyaas almaru cemsi bil mari ci cemsi isaamal maru ndeem cemsi masaahu doxante ne ak moom ne na nit ku nekk day ci ka nga xam ne moom lay àndal di dox rek ki nga xam ne moom lay àndal fu mu toll rek ne na kooko de ci moom lañ koy xiyaas maanaam ca moom lañ koy natte ka xaswi naali ni ki ñu yemale aw dàll bi naali ci aw dàll isaama naalu ndeem dàll wa xaasaahu tolloo wante na am moom ni nga xam ne noonu la aw dàll di tolloog moroom ma ngir nit ki man koo sol man koo jariñoo ne na noonu rek la ñuy natte ñaar ñoo xam ne dañuy ànd guddi ak bëccëg fu ñu toll ñoo koy ñoo ñoo koy nekk ñoo ñooy bokk fu ñu nekk ni ñuy natte ñoom ñaar seeni jikko noonu rek ni ñuy natte aw dàll rek mën nañoo natte ñoom ñaar seeni jikko ngir ne ku ci ne mën ngay copier ci sa moroom ay jikko bu fekkee yu baax la mën ngay copier ci moom jikko yu baax kon bu fekkee ne ab safaan la tamit mën ngay copier ci moom jikko yoo xam ne ab safaan lay doon wali shay i ñeel na mbir ala shay i ci mbir maqaa yiisun ay nattuwaay wa ashbaahun ak i nuróowaay walil xalbi ñeel na ab xol dalilun ab tegtal alal xalbi ci ab xol xiina yalqaahu bu dajee ak moom nee na mbir mu ci nekk ca la nga xam ne moom la nuróol rek moom lañ koy natt mbir mu ci ne ca la mu nuróol lañ koy natt waaye it xol bu ne xol ba nga xam ne moom la jublu rek ca xol booba lañ koy natt kon bu fekkee ne xol ba nga xam ne moom la jublu xol bu baax la mën nañoo natt ne kon nit ku baax la waaye bu fekkee ne ab safaan la tamit dañuy nattale rek ne kii ci ab safaan lay dox waaye ci li muy dox du loo xam ne suñ borom bi subhaanahu wa taala gërëm na ko kon bu fekkee ne nit ki moom dañuy natt ci moom yooyu yëpp dañ koy nattale ci digganteem ak ñami àndal dañ koy nattale ci diggante ña nga xam ne ñoom lay toogaale bu boobaa kon nit ki saa bu demee bay seet ay àndandoo wala muy seet ñoo xam ne ñoom lay àndal war naa xool ñoo xam ne ñoom la nuróol jikko waaye war naa xool borom jikko yu baax yoo xam ne su àndee ak ñoom mën a jariñu waaye su àndee ak ñoom mën a gën a yokk diineem waaye am xelam gën a ubbeeku bu baax a baax a baax wali baadihim ñeel na ñenn ci ñoom ci boroom xam-xam yi ci ñi nga xam ne ñooy woykat yi ñu wax ne isa kunta ndem nekk nga fii xawmin ci aw nit fa saaxib na ngay àndaale xiyaarahum seenu tànneef wala tu saaxib bul ànd al arda ku alku fa tarda nga alku maarda ànd ak aji alku ja dana saa boo demee ba nekk ci biiru nit daal bu bëgg a wut ab ànda ab àndaale maanaam di wut koo xam ne moom ngay àndal nee na bu boobaa na nga tànn seeni tànneef maanaam na nga tànn seeni tànneef ña nga xam ne ñoo ca di ay tànneef gën caa rafet ay jikko nee na na nga leen tànn di ànd ak ñoom waaye bul ànd ak koo xam ne dafa alku mukk ndax bu boobaa boo àndee ak ku alku dangay alku ànd ak moom rek yéen ñëpp ngeen alku kon booy tànn na nga tànn koo xam ne yéen a nuroo ay jikko yu baax nga gis ci moom jikko yoo xam ne mën nga koo roy man cee jariñu waaye bul ànd ak koo xam ne dafa alku wala koo xam ne dafa réer ndax ku alku da lay yóbbu ci alkande waaye ku réer ci ak réeraange rek la lay la lay yóbbe kon ñi ngi tuub bu baax tey jégglu di wàcce foofu suñ kàddu din wax ne in uridu illa lislah ma stataatu wa ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltuhu wa rabbul arshil azim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh